mo ولي جلي سوانا ميلي دنيتا بنيامي سوانا ميلي دنيتا دولي ndare aduna koy futi foyde ha gore jam ko heewi e dow golle bonde en dan boni man nga nu jox tur ak sant bi. man Mbaye Diop laa tudd. Ah, euh, tey euh, ñu ñëw fii nga xamante ni si euh, mën nañ ni kile di Assane Diop. ñu faat bakkanam ci anam bu doy anam bu metti lool fële ca marché ngelaw fii ci Thiès hmm. tey nag ñu ñëwoon fii ngir am ak yow benn waxtaan yow mi nga xamante ni si. Euh, frère am nga donc euh, est-ce que man nga ñëw ak ñun euh, ci fee yi nu mu demee ci sa grand frère boobu noonu. maa leen di man sax avant may moom si man lay commencé. Mhm. parce que man laa fi njëkk a dal. 2015 mhm. pël yi fekk nañu fi. Mhm. ay cinq heures du matin. man ak ma fa nekkaloon ma dégg paa bi yuuxu. bi yuuxu nag toog naa ay 30 minutes ma daw génn. bi ma génne ndeke fi ma jëm foofu la pël yi nekk bi may arrière ñu dóor ma weñ fii ci bopp mooy lii ngay seen 2015 ba léegi ñu yeew ma liñ ma yeewe ma tëdd ci suuf ñu kon dajji cantine dajji nañu treize cantine après ci laa daal di jóg rëcc dugg ci biir marché bi fi ñu rey Assane ma dugg aw noonu dem dem wooy responsable marché bi mun ma lan la man ko pël yi dajji nañu marché bi mu ubbi buntam rek foofu damaa daal ndax damaa pees deret ju bëri. après bi ñu ma woo ñu woo responsable marché bi. ni ko ñoo ngi sama kër ndax mbay dañ koo gaañ. ndax paa ma nga ca marché bu tëdd. ci lañu jël taxi ñëw fa. ñu téléphoné gendarmerie non police la ñu woo. police police ne amuñu effectif. Mhm. ñu woo gendarmerie ñu ñëw. Mhm. bi ñëwee ñu ànd ak ñoom. dugg ci biir marché bi fekk pël yi dem nañ paa bi moom mi ngi tëdd suuf naan mbay mbay tekki ma mbay tekki ma après ñu wut paaka dagg buum yi yëkkati ko faj ñu léegi nag ñoom seen bopp waa marché bi ñu ne dañuy def ket pour maag paa bi parce que boobu paa bi dañ ko dóor ba damm ay faaram fii benn fii benn paa bi moom borom cantine la foofu loolu maa moom ñu ay gardien lañ waaw ah, yéen ñaa ñëpp ay baaraamu déy bi mhm. yii dañ ko toj yëpp léegi ci suba gi nañ bi ñuy bëggee ñibbi. Mhm. moom muy jooy moom paa bi mag la parce que mhm. yàlla mag la moom xaw ma ñaata la mhm. ñu ne ko lala mu ne muy jàmbat faar ñu ñun léegi nañ xaar médecin bi ñu bu mu ñëwee ñu dugal ko rajo gis gars yi nañ def faar yi. dañ ko gaañ. waaw lépp ci marché ngelaw de. ñu laajal ñu ket. xam nga ne semaine foo laajee ket. xaalis maa paa bi kenn ku ne 10 000 francs jox. li ñu fey 42 500 moom la ñuy moom la ñuy fay chaque fin du mois. waaw. man nag lii rek ñu bëgg la cee rey ñu jógee foofu procureur yónnee leen ay convocation man ñoom ñu ne xamuñu xamatuñ fu ma dëkk ba mu fi jógee la la fi jógee. ñoom waa marché bi waaw. ah comment xamuñu fu ñu dëkk te ñoom ñu jël la yow ngay garder foofu. waaw loolu li ma leen gën a mer lii moo tax mu ngeen ma laajee ma sawar wax ci ñoom il faut ma weer leen. Mhm. ñu jege foofu. Mhm. procureur bi woo ma. non juge bi woo ma. Mhm. ne ma Mbaye Diop ma ne ko waaw mun ma yow. te tax suñuy convocation man ne ko convocation yi lan affaire bi jaaxal na quoi man fàttali li ñu ma defoon mun ma yow xanaa yow gaañu loon marché nga man ko xam kay mooy ñaari convocation man ko gis gisuma benn mun ma xam mun a mun bu subaa ñu wis tribunal ma ñëw tribunal a nga dañuy enquête rek parce que la nga waxoon ci dossier bu njëkk moom lay toppaati la ko layal ñi la demee léegi bi ma wéree ah ma delluwaat marché ba encore demaat fa amaat ak ñoom ay tolof tolof waaw marché ba ñor encore lépp ci marché bi la. Mhm. te boobu sax affaire bi sax taxu koo wér noonu. Mhm. yàlla bi ñu demee ba ci biir ma daal di bàyyi dem jaxaaw. Mhm. mooy fi ma nekk nii fa laa nekk nii. ma nekk fa nekk fa nekk fa nekk ba yàgg sama benn ñu ma taset benn tool. toolu xaal ba. bi ma demee ma ne asan toolu xaal ba sama mag ba mooy kii tey jii génn àdduna. génn àdduna mu yóbbu ko fa mu nekk fa. parce que ki fa njëkkoon nekk. bu tayee mu ñëw wala wax noonu day guddee voilà day guddee te ay minuit 11 heures la ñu te loolu gardien 7 heures war na waxaafee mhm. léegi responsable marché ne comme yéen ñaar ay frère ngeen mhm. nekk nañ fi muy 2022 yaa ko la fa ñu yow euh, bi la loolu dalee euh, ah. tey waa marché ba ñu ngi la jox convocation ah. ñoom ñu ne xamuñu fi nga dëkk léegi après yow nga jël sa grand frère tamit également euh, moom mu ñëwaat ah. est-ce que yow déjà ñoom bu ñu waxee xamuñu fi nga dëkk rek yow waroo woon retiré wu carrément ba ñu duggaat ci loolu tamit boobu amoo ci loo jàpp amoo ci loo jàpp wéeruwoo ci kenn ñun wéeruñ ci kenn ñooy ñafe suñu bopp lépp du ndey du bàyyi ñooy demal suñu bopp léegi comme man maa ngi dem toolu xaal ba ma wàcc ko fa tool ba rete ma tourné waat encore dix waat jëlaat sama palaat ñu ne fa ñu ñaar biñ fa nekkee yàlla def pour santé ma nekkoon jaxaaw ñu woo ma ma ne ko Assane ma de maa ngi dem jaxaaw depuis boobu ak léegi moom kese mooy garde suba amul jour bis bu ne dem amul samedi amul dimanche amul tabaski amul korite mhm. marché wutal na benn décoché la chaque jour mu ne wutal na beneen gardien ñu naan ko waaw waawaaw waaw waaw ba jéy ji am mhm. tey ji li am yëpp ñoom ci ñoom ñu ngi ci ñoom waa marché ñëpp ñu seen responsabilité la ñoom ñii mhm. daal affaire bi bu mu amee ñoom teew nañ fi wala ñoo nañ fi ñaari ñoo nañ fi juge bi loolu amee ñoo nañ fi jigéen ñi moom gàcce ngaalaama ñoom ñëpp a ñëw masow mi ngi ni toog maas affaire bi métti na leen trop. Mhm. woon nañ sax dinañ fi ñëw xam naa dañoo jekku ndax dañu jigéen ña fa ne. Mhm. dañoo bëgg a def délégation seeti soxna Assane bii mhm. soxlawu ñu nag weccat këyit la ñu bëgg. xam naa ne daa jàppaleegul mais dinañ ñëw ñoom. incha allah nii la affaire bi mais boobu ba léegi. wax dëgg yàlla moom nit ñi moom ñëpp la métti affaire bi ñëpp la métti. ñëpp la métti euh, ñëpp la métti léegi yow sa grand frère bi je pense jot nga ko gis est-ce que mën nga ñëw ci fay moom nan la ñuy jëlee bakkanam parce que wax ji bare na ah, euh, ñeen nit ñi euh, ñi ngi naan dañu ko gaañ si bët jamate ko ba pare door a koy faat ñenn ñi naan dañ ko faat ba pare sax daal di yóbbu li nga xamante ni si moom mooy menton bi est-ce que yooyu tamit nekk na dañuy waar loolu amu ci da yàlla gis naa ko yooyu amu ci am naa ni gaañ nañ ko moom gaañ nañ ko moom gaañ gaañ moom bari na gaañ-gaañ daal bari na mais lu nit ñi di wax lépp daal c'est pas la réalité. ñoom ñuy wax. Mhm. xamuñu ci dara moom daal xam naa ne gaañ nañ ko moom gaañ-gaañ mu bari na ci loos bi rek waaw gaañ-gaañ mu bari na wax dëgg yàlla. Mhm. mais yooyu ñuy wax dara amu ci man gis naa ko nii. léegi yéen nan ngeen ko yëgee da ngeen xëy rek ñu wax leen. man damaa xam nga moom 7 heures. Mhm. man 6 heures lay wàcc 6 heures 30. fii fekk 7 heures mu dugg ci kër gi bi loolu man ñëw naa. toog ma yàgg ma génnaat ma ne waa Assane sama xel quoi. Mhm. ko de ah ma ne ah, xam naa yaa day gàtt jàdd kër xaritam mhm. léegi sama jarbaat bi dëkk fii bi nekk néeg fii moo ubbi palanteeram dégg waa sunu ginnaaw ñu dëkk si ginnaaw bi. Mhm. booy bi doon sëriñ Mouroum. daanaka tonton Assane dañ ko rey marché nga mu dégg ko bi am na jax bu yàgg. ma dégg ñi di yuux ma génn. waaw lu xew lu xew kenn ku ne di yooxu wooyu wooyu mais man booba xawma lu xew koo laaj du la wuy après sama benn goro laa ne da Assane daal rey nañ ma dem marché ngelaw xool rek samay des nit ñi foofu moom metti na mais gëm yàlla rek yàlla moom bu dogalee moom jaam day nangu si sax day xaw a diis waaw c'est vrai léegi ngeen xëy rek gis leen ñoom ñu yuuxu noonu te yéen noonu da ngeen ñëwee am ci information. noonu la doom bu doom bu góor bii. daf ko xam xaman moom mas ngi la naa daa daw rek ndeysaan di bëgg àgg ci moom benn waaye ko téye. doomam moom doom bu góor xaw ma 16 ans la xaw ma 13 xaw ma 12 ans ay xale rek la fi bàyyi. ay tout tànk rek la fi bàyyi. ku ci mag ci ñaata at la man nañ mën a xaymaa tam. kan Assane man 59 la jëm. c' moom doomam yi taawam bi mag la wala xale la wala. xale la 13 ans 14 ans génn ku ñu des ñëpp ay tout tànk la amu ci kenn ku ci majeur ay xale daf bàyyi. ay xale rek moom moo dem ba di gis koor bi ñu kii ko. waaw moom gis na ko mais benn dañ ko langaam bala mag papa ji dañ ko langaam téye ko quoi. pour bañ ñu gis ko. waaw ñun ñu bëgg ak Assane lañ yées nañoo xam ne xew. marché bi foo sànni mbat na mu tag nit ñi dañu jooy mënatuñoo jooy. léegi euh, moom. après ñoom doomam yi ñoom nan la ñu dundee parce que métti na nga xëy sa papa nga ko daan gis nga xëy ñun la sa papa daal dinañuy daal dinay faa génn àdduna rawatina ñun la dañ ko faat ci anam bu ñaaw ñoom fan yooyu nan ngeen doon dundee ak ñoom wala fan yi ngeen di dundee ak ñoom. xam nga ñoom ay xel lañ seen xel sax seen xel ci dem ñoo ngi foo di ay booy lañ seen xel du ci dem xanaa kay ñaar ñu ma ne kay laa xam ne moom dina xam nañ ko muy Daba ak Pafal ñoom xam naa xam nañ dinañ ko xam moom. Mm-hmm. xale bu ndaw la mi ngi day naam li mu yem day naam xale bu tuuti la man mënu léegi ma ñëw ak yow ci sama dernière question parce que sànq ci sa njël benn wax da ni amu leen kenn ku leen dimbali seen moyen donc ngeen di demee te sàcc nañu si wéeru béykat yi que ab politicien turu su Souleye moom nee nañu paa bi nijaay la si moom moom nan la taxawoo ak moom nan la leen taxawoo woon ba kaa bi nii am. wax ci moom nañ ci xam nga wax ci kii jàmm moom day xaw a gis si man waaw wax dëgg yàlla Bira moom sunu sama sunu doom ndax papaam ñoo bokk ndey wax yàlla moom wax ci moom day xaw a diis si man ngi lay masaw bu baax a baax te di la jaajëfalaat bu a baax ci temps bi nga xamante ni si euh, permettre nga ko waaye également di leen masaw bu baax a baax tamit